mbokk mbokku internet ñuy bàyyi xel fii ci MAK TV Sénégal dal ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ñu tàmbalee ko ak li nga xamante ni moom moo ñeel kaawu Mamadou Diop ak ki nga xamante ni moom moo di ba Balde ba tax na coow loolu sax ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Diop ISEG ak Dieynaba Balde ak frère ba Balde daani woon nañ leen a teg loxo ba tax na sax euh, ba Balde moomule ak frère dal di woon nañ leen a libéré waaye moom ba Balde euh, âge bu mu déclaré woon ni que moom la am euh, daal di woon koy am ndaxte ba yoon defee enquête moom lu mu daal di xamle rek mooy moom vingt ans la daal di am ba tax na sax enquête boobu mu ngi woy ndax ngir xam li nga xamante ni moom moo di âge yu ba Balde bu normal ba tax na ki nga xamante ni sax moom moo di nekkoon soxna ki nga xam te ni moom di Mamadou Diop ISEC moom ndax euh, daal nañ koy impliqué ci affaire bi ndax bu ñu sukkandikoo euh, ci li nga xamante ni moom la enquête bi euh, daal di révélé moom soxnaam soosule moom moo daal di piégé ki nga xamante ni nii moom moo di Mamadou Diop loolu nag lu mu ci jublu woon rek mooy teg loxo école de formation bi di ISEC bu ñu noppee ci loolu wax ci euh, rey bu ñaaw boo xamante ne ni mu ngi amee fële ca Thiès muy ki nga xamante ni moom moo di Assane Gueye nag dafa daal di euh, faat ki nga xamante ne ni moom moo di Marème Diagne ginnaaw bi nga xamante ne ni ñoom ñaar euh, amoon na benn relation bu doxoon ci seen diggante ba tey sax bu ñu sukkandikoo ci nga xamante ni moom di yaayu Marème Diagne nag moom lu mu daal di xamle rek mooy Assane géey nag daal di woon menacé ki nga xamante nii moom moo di Marème Diagne laata mu koy rey. ba bu ñu sukkandiku ci enquête bi daal ki nga xamante ne moom moo di Assane Gueye moom euh, daf ko daal di euh, rey ngir 3 euh, millions de francs fa ak li nga xamante ni moom moo di trahison ba tax na daal moom daal dina koy jamante lu toll ci 17 coups ñu wax ci li nga xamante ni moom moo di euh, jeune notaire yi ba tax na euh, ñoom euh, élèves yooyu noonu la sax nga xamante ni toll nañ ci ñaar fukk ak ñaar élèves notaire yoo xamante ni ni dañoo def seen formation ba pare waaye lu ñu daal di revendiquer rek mooy ñu insérer leen ci li nga xamante ni moom mooy corps notaire bi ba tax na daal ñoom dinañ amal ajuma ji ñu dëgmal ab xiifal. ñu wax ci li nga xamante ni nii moom moo di euh, tournoi de football euh, féminin bi nga xamante ni nii euh, final bi ni ki démb la woon fële ca Sierra woon nga xamante nii suñu gaynde yu jigéen ñi daal di nañ duma ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo di équipe bu mal Mali. ñu jeexalee ko ak li nga xamante ni nii moom moo di grève des arbitres bi nga xamante ni amoon na fii nii ba tax na daal ñi nga xamante nii ñoom ñoo di arbitre yooyu loolu la sax li ñu daal di revendiquer rek mooy commission bu leen di jox ci làmb yi ba tax na daal euh, ñoom euh, ki nga xamante nii moom moo di euh, juge bu comité national bu gestion bu lutte nag daal di woon leen convoqué bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom moo di Babacar Diop nag ci yéenekaay bi di sunu lamb moom lu mu daal di xamle rek mooy ñoom du ñu dellu ginnaaw benn yoon ci li nga xamante nii moom moo di seeni ay revendication bokku internautes yi canta ngërëm ñeel na leen di lañ leen andiloon ci ay xibaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox di daje ëllëg ak jàmm ci suñu yeneen xibaar